yëkkati na politique bi nag fii ci réewum Sénégal def nañ ko lambu golo lambu golo ku jug daanu vox populi naan man déet ña ngay galgalante kay ci digg langu politique gi maître di joxor maajoor joxor leel jëmale baaraamam ci bëtug Aly Ngouille Ndiaye Mimran ak bu président Macky Sall tribune yéene kaay naan man déet taajum teesante kay moo am diggante maître Moussa Diop Aly Ngouille ak Mimran vox populi naan en tout cas moom maître Moussa Diop day lam leen jiiñ dans na rëy na tribune naan kon maa la koy yeggali moom maître Moussa Diop nee na président Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye ak Mimran dañoo taqee ci li ñu dippee ay jaman québécois scandale la goo xam ne gu rëy la moom maître Moussa Diop ne en tout cas Sénégal gi la ñu waxee ay jamaa jëlub contrat daal di koy xaatim contrat goo xam ne ay milliards yi milliards la suñuy koppar daal di ne ko France daal di jël koppar ga nag seddoo ci ndoddug sénégalais yi turbine yéen a kaay naan kon Bougane Gueye Dany waxoon na ko nee woon na jamaa feeñ na ci réewum Sénégal 2021 la ko njiital gëm sa bopp waxoon xam-xam gi nga xam ne am na ko ci réalité bu gouvernance yooyee moo tax mu xamle woon ko di sàkku ci président Macky Sall mu daal di activé daar daar brigade bu affaire financière ak OFNAC l'évidence naan maan ma ngay naqarlu scandale bi grand place naan kon sàkku yi ñu daal di leeral kàddu maître Moussa Diop yii waaye tam moom it ay kàddoom jëm ci réunion boo xam ne amal nañ ko xaaja guddi ca hôtel Georges V ba nekk ca Paris foofee nag ñu doon xool naka la ñuy patam patamee ab contrat daal di séddoo am amuk sénégalais yi ci wàlluk jamaa laajee mu samp di ndax Sénégal dafa am jamaa su amee jamaa jamaa ak leneen dëgg-dëgg moo am ci suufu Sénégal yi sénégalais di ci joggi bës bu yàlla sàkk ñu ciy joggi terewul ñi ngi nekk ci coono yoo xam ni maar day taali diggante Wasangara Karakayna ci département bu Saraya diwaanu Kédougou wala it ca Kéñéba ca commune bu Médina Fulbe région bu bakeel ñaari at yi kàddu yéen fay jibal ci wàllug jamaa dëgg la am du dëgg bugaan naan leen na président Macky Sall génn leeral Jaaña Njaay na génn leeral waaye Mimran it na génn daal di leeral moom Aly Ngouille Ndiaye naan leen lu ñuy leeral daanaka amu fi maître naan leen dafa xaatim ab bataaxal boo xam ne moom Aly Ngouille Ndiaye moo ko jébbaloon Mimran xamal ko ne mën nañoo exploité ci tuluk société bii di Sornoway Jemon Corporation te naan kon benn autorisation d'exploitation dina ci topp Aly Ngouille Ndiaye naan kon bataaxal bii day bu amee ci boppuk daanaka maître Moussa Diop la nekk lettre yooyee amut mësta existe moom cellule bu communication bu Aly 2024 daal di xamle ni mani la kàddu yii amut te taxaw naan Sénégal am na jamaa ànd naag légèreté ci maître Moussa Diop moo xam ne nee ne ëllëg dafa bëgg jiite Sénégal Ousmane Cissé ancien directeur des mines ci Vox Populi ne coow li moom moo di jamaa ci boppam mënee su ko exploité ci zone noor bi ndax amul ay roche yoo xam ne dafa ànd ku jamaa société bi nga xam ne cité nañ ko it registre bu titre des mines bu Sénégal tur wa newu fa laas naan leen en tout cas maître Moussa Diop taxal na gouvernement gu Sénégal bi rawatina nag Aly Ngouille Ndiaye bi yéen a kaay naan kon dañoo yàgg taxawal geneenu marché ngi nii bu juróom-ñaar fukk ak benn boo xam ne diggante ACD ak ministère de la santé directrice générale bu taxaar project daal di weddi ACD Fatou Kiné Cissé njiital taxaar project ne marché bii ni ñu ko taxawalee wuute nag ak ñu taxawalee yenn ci marché yu soxal yenn hôpitaux yu ci mel ni la Dantec ndax marché bi ci diiru benn fan lañ ko taxawalee maanaam waxtaan ba déggoo la ñu amalee marché bi vérification yi nga xam ne daal dina cay war amu ca le 15 lañ ko lancé le 16 ñu daal di cay tontu marché fukki million day laal li ci gën a tuut benn ayu bés ngir ñu daal di koy saytu marché juróom fukk ak benn ci milliard fan ñu lancé ko ci benn fan ñu daal di koy tontu benn lettre ba leen daal di jël daal di tontu ay junni junni lettre waxtu woow mi ngi woon ci tiroiru ministère de la santé coow la moom moo di nañu wax lan moo lal gile marché moom ba ngoom jëwrin woon ci biir yéenekaay bi ba tey xam le ni coow li moom moo di marché bi la mu làmbool dafa war a leer te daar daar nag dees na ko war a leeral ci réewum Sénégal ndax nag mun ñoo taxaw ne gouvernance sobre et vertueuse jii ñu taxaw di ñu gëmloo ni am nag juróom-ñaar fukk ak benn milliard yoo xam ne nañ ko daar daar ko benn nit société boo xam ne ab soxna ko jiite ci marché boo xam ne ñi ngi ko def ci ndoddug sénégalais yi te lañ fay defar sénégalais yi daal di koy moom sénégalais yi ci boppam Farba Ngom ne ñoo soxla ay leeral ci gile marché laas yéene kaay naan man en tout cas bennoo bokk yaakaar moom ña nga daal di tampaloo faya laaxu doon benn vox populi naan ko déet xanaa boobu da nga yëgul bi nga xam ne am na ci biir APR Maxime Montero ma nga xam ni bokkoon na ci ñee sosoon APR daal di ne dudd président Macky Sall daal di dem fekki coalition jonn 2024 situation économique Maxime ne waral na ko ak social Sénégal waaye tam façon bi ñuy gouverner réewum Sénégal démocratie fi mu toll ci réew mi wàllu kaaraange fi mu toll ci réew mi Maxime ne lii ya tax ma daal di bàyyi président Macky Sall jubali ci bun Abdallah Dionne coow li coow li mooy dañ ko accentuer ci Sénégal kese liggéeyal Sénégal dong li ya tax nag Maxime xam le ni mook Benno Bokk Yaakaar jeex na l'enquête quotidien naan man en tout cas délégation bu rëy bu Benno Bokk Yaakaar moo daal di dem ca Paris moom Amadou Ba daal di fay tëggub meeting dafa demoon ci njiital gouvernement ca Paris mujjee nag nekk candidat boo dajeeg ay militant am Aminata Touré daal di ne man France naka la ñu mënee lii laa xamul la ba joo ñu indi ci wàllu diplomatie ci réewum Sénégal laa xamul lan la ñoom candidat la ñu dalal wala premier ministre Ibrahima Sissoko candidat président Sissoko 2024 ci turbine yéene kaay naan leen ak lu mën a xew ci Paris ak lu mën a xewit ci Sénégal nan jàpp ne élection présidentielle yi daal soobu nañ ci ñoom it soobu nañ ci ba def seenub caution di ñaan président Macky Sall leen rek mooy candidat boo xam ne samp na ndëndëm ñu bàyyi ko mu bokk ci yile élection ndax si fees toll ci réewum Sénégal njiital mon pays mon avenir di ñaan conseil constitutionnel ñu daal di ànduk neutralité daal di nag mën a dugg ci taarixu réewum Sénégal ba faw Ibrahima naan li nekk sama base te waawoon pël jaarale ko Kër Massar daanaka moo nekk ci réewum Sénégal ci wàlluk infrastructure yoo xam ne ñàkk na plateau médical boo xam ne daanaka amut ñàkkum xëy yoo xam ne mi ngi ci ndaw ñi waaye tam ñàkkum dal goo xam ne mi ngi ci réew mi lii nag la ñu bëgg joyante ci réewum Sénégal ngir géneenu Sénégal daal di juddu renaissance patriotique pour le développement durable ne lu ñu mën a waxit Sénégal te joyantiw ñu ndaw ñi waxuñu leen ci forum ban doon amal jagleel ko ndaw yi ak seen wàllum xëy ci réew mi Koline la jiitu moom moo di ndaw yi daal di am fu ñu tàggatoo maanaam jàng ba seen xam-xam mën a màcc ci benn point ci réew mi fexe jàngal xale yi objectif la waaye itam fexe ba réew mi am ak wér gu yaram goo xam ne mënees naa concentré wu objectif la jaarale ko ci mbay mi ci xëyug ndaw ñi fexe ba immigration clandestine daal di dakk ci réew mi lii ay sabab la monseigneur Benjamin Ndiaye ci libération libération yéen a kaay ne coow li ci réewum Sénégal fi mu ne moom moo di mbàngaan gi nga xam ne xale yaa ngi ciy jaar ci géej yi di faatu ci anam ngoo xam ne mitti na ñaaw na lii dees na ko xeex ci réewum Sénégal l'observateur naan fi ne day politiciens yi ku nee ngi wax ku nee ngi yëkkati say kàddu xool la nga bëgg ak la nga bañ ku nee ngay tamanteeg sa morom waaye Idrissa Seck ngi def cell rek lan moo waral tekku Idrissa Seck gii libération yéen a kaay naan kon waxtu woow jàppal ni téeméer fukk ak ñeenti maire yu Sénégal daal dina ñuy bàyyi association des maires du Sénégal l'observateur naan kon delsil ci man